dali na jàmm ñu ànd xëy yér kaay ñu xëyandoo yéen kaay gii ñu xibaar naan ñu kuréel gii di lakos les alliés du candidat Ousmane Sonko ñoom Dambo Dia mi taxaw temm ngir jàppale Ousmane Sonko démb a baax doxalinu Cour nga xam ne Sabassy Faye àtte woon na ko sa diwaanu bu baax a bi di vox populi ñoom sax la ñu jàpp nee nañu loolee Macky Sall moo ko santaaneelu ci lu jëm ci wàllum politique a jox li nga xam ne mooy ay fiches parrainage waaye nag ñoom wàlla ko Koso ñoom nee nañu dinañu wéy di mobiliser di défendre ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéenekaay gi di Source ci xët mu njëkk ma ñu fekk fa docteur Mbaye Cissé di spécialiste xelam màcc ci jëm ci wàllum yoon daan nay wax ci lu jëm ci parti Pastef bu Ousmane Sonko bi nga xam ne dañu ko tas ak Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne moom la ñu ngir mu nekk seen candidat ak Picoc Mballo gi nga xam ne jamono ji gars ñoo ko si wax ne parti Pastef comme

Diallo nee na ans yi nga xam ne moom la Macky Sall jiite réewum Sénégal ci la xamee na nag dëgg-dëgg maanaam jël pouvoir yëpp jox ko am njiitum réew loolee nag danger mënu ko weesoo ndax ki ñu dénk lépp am na sañ-sañ def lépp moom Mamadou Lamine Diallo daan nay wax ne maanaam Macky Sall am na sañ-sañ nappaaje lépp loo xam ne jëm na ci wàllum état de droit lu ko neex def te nag loolee jaaduwul ci am réew dañu ko war a réformer moom Mamadou Lamine Diallo ko waaye nag xool ressources naturelles yi di ko doxalee nu mu la neexee maanaam di ko gérer nu la neexee loolee lépp nag pouvoir yu bari yi nga xam ne moom la jox njiitum réew loolee ko waral maanaam fukki at ak ñaar yi Macky Sall yore réew mi ci laa xam ne jël pouvoir yëpp jox ko am njiitum réew danger mënu koo weesu yéen kaay gii di l'indépendant ñu xëy fekk fa Alioune moom nag jamono ji li muy sàkko mooy Bassirou Diomaye Faye ñu daal koy libéré ndax nee na la boo xam ne maanaam bu yaru la intellectuel la te nag li moo ko dal jamono ji li ko ko teg mooy jege gi ko

kaay gi di turbine xëy duñu xibaar naan ñu gëm sa bopp daan nañuy lancé open press tour maanaam bugaan ngay daani li mu bëgg fépp fu jaar mu jaar fa yéen kaay gi nee na dem ci diwaanu Tamba diwaanu Kédougou diwaanu Kaffrine diwaanu Kaolack diwaanu Fatick ngir effacer Macky Sall yéen kaay gi di Vert xëy duñu xibaar naan ñu Ba bëri ñoo xam ne ñoo ngi ngawta ngawtee aw turama waaye nag li am ba des moom jamono ji am na atu yëpp maanaam am na dayo bi ngir na gañe mbooleem ñi nga xam ne ñoom la jàkkaaroo la ci élection présidentielle 2024 maanaam bi li mu bëgg a wax mooy Macky xalaat na bu baax a ci Amadou Ba mi mu jiital te Amadou Ba jamono ji am na dayo gañe élection yi yéen kay gi di 24 heures xëy dañu xibaar naan ñu démb la woon journée mondiale bi ñu jagleel wàllum pêche maanaam wàllum napp gi Abdoulaye Ndiaye bu Greenpeace na ay pêcheur ay nappkat yoo nañu jën ci jël gaal gi bëgg a dem bitim réewa moo tax nee na bëri na ci ñoo xam ne faatu nañu ci te nag loolee munta ñàkk kaay gi di vox populi xëy wax ci immigration clandestine bi ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la andi réew mi rawatina askan wi yeewoo ci diwaanu Tëngéej ca moo tax imam yi ak notable yi ñi nga xam ne ñoo dëkk jokkule ñoom nag yëkkati nañu seen kàddu nee nañu bëri na seeni doom yoo xam ne dem nañu ca bitim réew far des ndox mi te nag am na yenn waajur yoo xam ne ñooy responsable lu mel noonu li si des état bu Sénégal la ñoom imam yi ak notable yu Tëngéej ca ñoom nag jamono ji ci li nga xam ne moom la ñuy sàkku géej gi ñu defaraat ko ndax nee nañu géej gi jamono ji yàqu ba nga xam ne maanaam kenn mënu tujjee dund ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi mooy ñi nga xam ne dañoo sonn dem ba nga xam ne seen yaakaar tas na ci réew mi amuñu liggéey di parang-parang yi ñoo ñooy jël gaal gi yéen kaay gi dala ko ci xën mu njëkk ma ñu fekk fa njiitul conseil national du patronat bay di aña daan nay wax jafe-jafe yi nga xam ne fiscale bi yéen gi de la tribune xëy duñu ñu xibaar naan ñu yokku médicament yi yokku garab yi jamono ji ma ngi xeeñ yéen kay gi di libération xëy duñu xibaar naan ñu Pape Sané libéré nañu ko judiciaire procureur nag dafa sàkku woon ngir ñu mandat ko dépôt juge bi daal lànk rappeur bii di Nit Doff am na retour de parquet yéene kaay gi di Les Échos nee na Diop Taïf ak Vitor Der ñoom tey ji danañu leen létt wala ñu firi leen yarga si ak lu toll ci fukk ak juróom-ñeent kii farandoy Ousmane Sonko tey ji danañu leen atte Amina Poté ak Kouthia ñoom tim tey ji danañu leen atte ca tribunal ba yéene kaay gi di Le Point Quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum sukkandikoo ci délégué régional bu Diourbel di ministre Pape Diouf ñoom nee nañu réussite totale objectif bi nga xam ne moom la ñu leen waxoon deux cent huit mille ci ay parrain loolee la leen santoon waaye nag dépassé nañu ko dem ba deux cent soixante bi jamono ji toll na ci cent trente virgule a kaay gi de l'observateur xëy duñu xibaar mbir mu doy waar mu xew ci diwaanu Diourbel nee na dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dañu ko ëmbal ëmbal ko ba mu toll ci lu jëm ci juróom benn cay weer yaay ko